doy na docteur la waaye it sàmm la ndax damaa yor ay nag ak ay xar yor sama gerte di sàmm kuy sàmm nag boo bayul da ngay perte ndax dangay ngay ngooñ ah gerte gi da nga ci am ay rakkal da am daal loo dundale sa jur ba moo tax léegi kuy sàmmi tamit foog nga bay à côté pour mën a yor sag jur man nag ren nag bayuma man ndax def naa demande kenn joxuma dara joxoon nañ ma fi xaw ma ak ak ak ak ak ak ñebe ne mën naa ko jaay loola mënuma koo jënd sax ba dé ba dé ba ko parce que prix bañ ma koy jaayee ak prix bañ ma ko doon joxe man mën naa ko am dans le commerce ma bayal sam bopp moo ma gënal mbir mi daal moom comme ni nga ko gis daal moom mbay mi daal doy na waar lool doy na waar xam naa li ma ci xam na xanaa dañuy mujj ko nag di jéemal sa bopp rek ñi ko war a jot jot na ko boo yoree un gouvernement di dimbale askan wi da dem ci askan wi néew doole waaye man du ma nekk am ay millions wala ay beaucoup de millions nekk un un gradé wala ma nekk loo xam ne mën naan laa sama bopp ma dem ñu ma jox jiw bi di ko bàyyi ñi nga xam ne ñu amuñu dara loolu capote affaire bi te c'est de tout le temps comme ça da ngay gis des des gros producteurs ni moom la ñu wax bu ñu ñëwee jël jël gerte gi wëññi ko di ko jaayaat te ñoom ñoom ñooñu xam nañ loolu ministres yi xam nañ loolu xaw ma dañ leen a ragal. xaw ma dañu nekk de grand politicien ba ñeme wu leen wax dëgg xaw ma loolu mais da benn nit muy mu njoxu 1000 tonnes 2000 tonnes 3000 tonnes boo waxee mu ne dama am opérateur la mais nañu opere boo kooku kooku da ngeen ko waroon wax ni ko demal ngeen recensé ñi nga xam ñoo fay baykat ngeen jox ko mais fekkee ne moom ay ay ay ay ñi mu jox yow doo ko xam boo demee boo jëndul doo ci am ah nga toog yow di xaar sa demande boo ñëwee ñu la gerte jeex na jël nañu ko mais gouvernement bi ñoom ñooy doxale noonu ñooy doon nag dañuy am am dañu war am courage ministre bi yore mbay bi yore gerte daa war a ku demander ay 1000 tonnes 2000 tonnes mu vérifier li nga am ndax dëgg la nga won ko ñi ngi koy jox waaye su fekkente ne yow damay bind milton tonnes 2000 tonnes 4000 tonnes nga jox ma ko man rek boo pare man la joxe naa ko nangam ak nangam alors que yow ñun ñi nga dendal kenn amu ci kenn amu ci gerte man ren bayuma damaa bay sëb rek parce que dama doon bëgg a bay gerte mais mënu ma dem. moo dem parce que aussi buñ koy jaayaat fii dañ lay jaay ay ay kilo bi à 500 600 700 francs nga xam ne ba nga xam ne saako bi daanaka day fa ay 70 000 léeg-léeg yow boo te yow du amuloo spécialité mbay man damay bay pour dundal sama jur rek mais du pour daanaka di ci jaay ak yooyu defuma ci commerce mais su fekkee ne nag man dafa cher dama daal toog du ma bay ah sama xalaat mooy commerce la ñuy def rek commerce nag au plus offrant ngay dem boo sa yëf di ko jaay. kii mën ko jënd ci yow junni doo ko dem jaayi kuy mën a jënd juróomi téeméer boo xamul dama lay dencal naa dencal sa bopp denc ñëpp mën nañ ko boobu solution moom nañ ko régler trouvé guñu ko man du ma gis ku may fay ku may fay da nga am 500 francs ma dem di jaay ay ay 200 210 waaw ndax ndax kee may jaay 500 danaa mën jaay ko li may jaay denc ci lu ma jiwu moom ma gënal ñoom kay li ñu war wax léegi bay wéy na mbuusa ah. li ñuy war wax chinois yi nit ku ne fii sa njëriñ nekk fa ngay dem chinois yi mënuñu leen fi génne parce que man miy jaay mu comme que maa na ci àll ba di bay sonn ba bëgg a dee mu pare nga ñëw ne jaay ma ko ci 210 du loolu loolu jëru sax def def ay ay publicité wala du ñu nañu chinois daan daañu jënd li fi ne nañ kay nañ fexe ba ñu yee nit ñi bokk ku jaay ci chinois yi comme que gagné nga nga denc ci loo jiwu ëllëg déwén bu dee na ñoom ñu seet lu ñu jëndee le prix mais nëgë ni si dañuy sonn rek kenn du fi gis chinois bu lay fay téeméer eh. ngay dem di jaay 200 francs eh, gouvernement jaaralu ko kenn parce que ku ne sa bopp ngay dundal ñi ci àll fii dañoo bëgg dund ñooy ñooy ñooy ñooy vivre difficulté yi ñooy sonn ñooy jënd ceeb ñooy jënd diw ñooy dem ci ñeneen ñi nga xam ne am nañ lu ñu lekk ñu nga Dakar te jàpp seen jàmm loolu jarul sonn.